ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا بسم الله الرحمن الرحيم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 bu yàlla péncoo jaam ñi kenn du ko tukki tukki mi nag dafa tombeek yonentu sallallahu alayhi wa a nekk ci jamono ju jafe màkka sonnal ko ñaar ñi nga xam ne ñoo doon ndimbalam yi gënoon a ràññeeku ci màkka ak ci ñi ko jege di soxnaam su baax sa kaar ndey xadijatu ak baayam bu baax ba kaar Abu Taalibin mu décidé ne dafay dem Taif Taif wan ko lu yées lu ko Makka wan ndax yonentu Ndey Aysatu mos na koo laaj lan mooy li gën a métti ci li li la dal ba muy nettali mu ne dara melul ni la ko dal ba mu demee Taif ndax humiliation dañ ko gaañ physiquement gaañ ko émotionnellement gaañ ko moralement sallallahu alayhi wa sallam waaye terewul mu wane yërmande booba addaas wiisi na di ko wan ko message bi du yem fii dana war a àdduna ndax addaas ma nga jógee ca Ninuwa dëkk yonent yàlla Yunus Iraq malaaka jiba doj yi ànd ak Jibril ñëw yàlla nga wax ne ko malawul aala ngi lay déglu balaa mooy yegg mag jinne yi ñëw yàlla nga koy ko nit ñee la xamul waaye jinne yi sax xam nañ la wa id sarafna ilayka nafaran min al jinn sonn nga nag kaay ma wan la fi ma la teg yàlla invité ko jaarale ko baytul maqdis soo ko yóbbu ba fu foo amut yóbbu na ko ba fu fu amut mooy foo xam ne barab amatu jamono amatu moom kot yàlla loolu lay wax ne yaa xayra man yemmama alcaafuuna saaxatahu saayan wa fawqa mutuuni laay nuqir rusumi yow mi nga xam ne képp ku am soxla yaa gën ci kum jublu pour soxlaam ba faju yaa xayra man yemmama yow mi nga xam ne yaa gën ci ku jublu alcaafuuna woy soxla yi alcaafuuna xaaraankat yi alcaafuuna ñiy wuti ñàkk yóbboo leen ko moo xam ñàkk ga lumu moo xam leer la moo xam mbiru àdduna la yow mi gën ci ku ñuy jublu saaxaatihoo ëttam ña koy jublu moo xam dañuy dox wala dañoo war ku ñuy jublu ngir nga fajal ka jublu soxla ci mbindeefi rek yaa ci gën huwa alayatu lkubra li muctabirin wa huwa nicmatu lcuzma li muctanimi wa man huwa ne yaay kéemtaanu yàlla gu gën mag ci kuy xalaat kuy xalaat xam na ni kéemtaanu yàlla gi gën a mag mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow yaay xewalu yàlla gu gën a mag maanaam képp kuy xool yàlla di xooli kéemtaanam boo gisee yonentu dootoo xool feneen waaye képp kuy wut koomu àdduna ak àllaaxira ak la ca gannaaw boo amee bi soxlaatoo leneen yow dee sarayta min xaramin leylan ila xaramin kama saral badru fi daajin min albulami ni weeri badr di wëree àdduna penkook sow noon nga def yow guddi gi la sama borom di rañaanee wax nañ ne ñaar fukki fan la ak juróom-ñaar ci rajab mooy li ci gën a siiw wa bitta tarqaa ila an nilta manzilatan min qaabi qawsayn lam tudrak wa lam turami mu ne nga fanaane yéeg ba yegg ci manzila ci daraja ci position boo xam ne jege nga yàlla ba mel ni kocc na muy jegeeg ñaari xale ya jege mënta romb loolu waaye jege ga nag ëpp na di nekk jegeeg physique ndax yàlla lépp loo xalaat lépp lu ne ci sam xel baa nga di ko imaginer wute loolu du barab de jege barab jege la daal waaye nag na jege yàlla ak maqaama ak manzilatu ba nga am waxuma la kenn mosu koo jot waaye kenn mosu koo sàkku waxuma la kenn mosu koo jot waaye kenn mosu koo sàkku kooku yow rek yaa ko moom kon diggante Makka ak baytul maqdis mooy lisraaw bi bayti bi mu tudd jiitu bayti bim ci teg muy miraaju bi mu jël nag baytu bii nga xam ni ci la jiitee yonent indi ndax am na ñu ne bala moo yëg la leen jiite am na ñu ne bi mu wàccee mu dugal ko ci diggante miraaj ak miraaj wa qaddamat ka jamiu l anbiyaai biha rusli taqdima maxdumin ala xadami yonent yi ñoom ñëpp ñoo nekk sey maam moom nga nekk seen ilimaan te du teraanga guñ la defal de waaye day ay surga yu taxaw ci seen gannaaw njaatige mu di leen yóbbu ca fañ war a jëm te mooy yàlla subhaanahu wa taala maanaam ni mu nekke yonent nit ñu ordinaire yi noonu la nekkee yonent yonent yi sax ndax ñoom ñëpp xaqiqatoom ci lañ daa jëlee te agsi na kon nag fokk ñu def de service ne ko li ñu dénkoon a ngi nii sallallahu alayhi anta taxtariqu sab'a tibaqa bihim fi mawkibin kunta fihi saaxiba alalami mu ba nga jógee ci loolu nag nga ànd ak ñenn ca ñoom di xotti taaxi asamaan yaa ngi ci convoi boo xam ne la muy rëy-rëy la muy baax-baax la muy màgg-màgg kenn lañ fay joxeñ mooy yow mëngale kuñ buñ ne rek yow lañ ci jublu ndax ñoom ñëpp yaa leen tax a jot yonent yee surga lañ ci malaaka yee surga lañ ci lu tax ñu tudd yonent ndax yonentu sallallahu alayhi ñim jiite kat ba mu demee ci asamaan yi dafa am ñu fa fekk loolu nag muy wane moom li ko dese ci àdduna nan la ko war a dundee aadama la njëkk a jot yàlla koy wax ne ko màkk danañ la génnee de ni seytaane génne woon adama ngir noonu ñaareelu asamaan mu fekk fa isa ak yaxya madina ga nga jëm daa fa fekk ay giiri yahood danañ fexe ba liñ defoon yaxya muy rey ko bëggoon koo defe isa ma sauvé ko danañ ko fexe ci yow de ñetteelu asamaan mu fekk fa yusuf lu muy firi màkk gii lay génnee inna alladi farada alayka alqur'ana la radduka ila maadin da nga dellu si de da nga génn di laqatu booy dellu si nag doole jooy joole joo xam ne ngay amee kenn du la mën a tenir waaye doo leen wan doole bu keroogee da nga leen di baal nii yusufa baale woon bokkam ñeenteelu asamaan Idrisa mi wax ne moo njëkk a bind yow tamit boo jógee ci fatxu Makka da nga commencé bind buur yëpp ci àdduna ngir woo leen ci lislaam juróomeel ba Haaruna mi nga xam ne banu Israel dañ ko bëggoon ngir lawetam yow it baal gi ngay baal Quraysh gannaaw boo leen jekkoo danañ xam ni yow dëgg-dëgg doo moroomu kenn meloo ni kenn kenn melut ni yow luñ la nëmbaloon ci nooneel danañ ko weccee cofeel ba dootuñ la dégg nga mën a muñ ba dootuñ la mën a muñ juróom-benneel ba Moussa mi ma waxoon ne ko na dem xeex ak jabaabiratu yi muy bandi adduna yi criminel international yi yow tamit boo jogee ci lii danga xeex ak criminel internationaux yi moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam ghazwatu Tabuk la mujj xeex ak Rome ki nga xam ne ñoo ko bëggoon a attaqué si mu dajeek ñoom ñu daw juróom-ñaareel bi mu dajee ak Seydina Ibrahim lu muy firi mooy yonentu yàlla Ibrahim moo tabax kaaba gi woo nit ñi ñu aj si te aj mooy ponk bi nga xam ne moom lay mujj a ci yow moom ngay def soog ma wuyu si yonentu bi mu ak bi muy wuyu ju boromam ñetti weer la ak ruslëf sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi nga nekk ci yoon woowu ci tukki mu màgg moom xata ida lam tadac sha'wan li mustabiqin min addunuwi wala marqan li mustanimi xafatta kulla maqaamin bil idaafati id nudiita bi rafi misla almuhradi alaalami kay ma tafuuza bi waslin ay mustatirin an il uyuuni wa sirrin ay muktatami mu ne ko nga dem ba bàyyatoo am leef maanaam yow dem nga ba kuy jógati di njëkkante bu ñu laa yonantu yegg na nga toog ndax booy njëkkante da ngay njëkkante ko ku fi nekk moo mais koo xam ne yegg na fa ngeen war a njëkkante ba noppi looy njëkkanteeti looy njëkkanteeti ku war a yéegati it ñu ne la yonantu sallallahu alayhi ma nga ca dayo yéegu waaye kooku mënatu amatoo maanaam fu ñuy yéeg ci mbaax rek romb nga ko waaye kuy njëkkante dégg nga ba muy jóg ak yegg nga moo tax nag nga bépp maqaama boo xam ne mm. maqaama la muñ mos a jox ab yonantu mbaa ab malaak mbaa ab waliyu mbaa ku moo kumu lu muy kawe-kawe buñ ko comparé ak yàlla teg rek maqaama ma suufe mm. lu tax yow rek la yàlla yëkkati woola dégg nga rafaa la ni ñuy rafaaye mufradul alam ci biir munaada yi ndax bañ demee ba nga xam ne jibril ma nga ca sidratul muntaha mënatul a jàdd la dégg nga wa maa minna illaa lahu maqaamun maalum ne bu may séq jéego rek lakk ni kawar di lakkee yow booba lañ la woo ci xadara yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bañ la woowee ci xadara yàlla bi nag booba la bépp maqaama tuuti bépp bépp maqaama suufe ngir dootoo moroomu benn wala kenn ci mideefu yàlla yi lu tax nag yàlla defal loolu kay ma tafuuza bi waslin pour mu am ak yow jokkoo goo xam ne ay yi mustatirin ay mustatirin ay yi mustatirin jokkoo goo xam ne dafa nëbb gumu ci nëbb benn bët amu ca accès waaye la mu wax ak yow tamit wa sirrin ay yi mukta tamit muy mbóot moo xam ne dañ koo nëbb gumu ci nëbb maanaam yonent sallallahu alayhi wasallam ba mu wéeteeg yàlla kenn tegu ko bët ndax foofa mi ne fa àggu waaye la mu wax ak moom it kenn xamu ca lëf ndax fa xaa ila abdihi ma awxaa moo tax fa xusta kulla faxaarin gayra mushrik nga nga nga nga làq bépp puugare te bokkoo ko kenn ah kenn bokkut ak yow sa puugar yow yonantu sallallahu alayhi wa sallam wa juzta kulla maqaamin nga jéggi tamit bépp maqaama gayra musdahami nekk loo ku ñuy raj raj loo yow raj kenn kenn raj loo raj raj wut ak yow sallallahu alayhi wa sallam moo tax wa jalla miqdaaru ma wullita min rutabin aka màgg nga xam ne sama borom tabaraka moom la la méngale ci ay maratib ci ay daraja wa azza aka jafe idraakuma la nga xam ne uulii te joxe na la ko min niami ci xéwal waaw bu dee ni nga toll kenn tolluwut ni waaye bu dee li la yàlla joxit joxuñu ko kenn maanaam ni nga mel kenn melu ko li nga am kenn amu ko waaye ñun ñun lu ci suñ cër ñun ñun jullit yi nag mu ne bushra lana ma'shara al-islami inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadimi lama daa allahu daa'ina li taa'atihi bi akrami rusul kunna akrama al-umami ah mbégte mu rëy ñeel nañ ñun waa lislaam ndax sama borom tabaraka wa taala ci ay naayatoom jox nañu tabax jox nañu ponk jox nañu pilier boo xam ne du dammat du daanu mukk looloy lan mooy ba defee yonantu sallallahu alayhi mu gën ci yonant yi mu woo ko ne ko yaa ma gënal ci yonant yi booba lañu yonantu yóbbaale géew ñu nit ñu gën ci xeet yi kon nag yàlla nañ ko yàlla nañ ko mérité yàlla nañ ko mérité bi yonent nekk xayru rasul rek la ko xayru umma nan lañ koy maintenir nag taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tuuminuuna billah ne ci lu baax te di ko digle ba lu bon te di ko dégg nga moytuloo te it tamit suñu xol ak suñu xel ak suñu lépp ñu jox ko yàlla rek guddik rañaan gaa ngi noonu buñ ko waxee da ngay foog ne guddi gi yëpp la waaye na mu tàmbalee rek ne sarayta min xaramin laylan ila xaramin laylan nga am nga israaw mooy firi dox guddi dégg nga boo fekkee sara guddi la dox bu ne laylan nag mu ngi lay wan ne du guddi ga lépp ma ngay feddali guddi ga waaye du guddi ga lépp as lëf rek ci guddi ga ndax yonent sallallahu alayhi wax nañ ne dem na ba ñibbisi te dégg nga lal bi mu toogoon tàlleekut parce que boo toog boo jógee ci lal ni muy koto moo noonu mm. après dafay tàlli garab gi mu romb laal xob ya muy yëngatu xob ya daluñ mooy yonentu sallallahu alayhi wasallam ba muy dem yàlla dafa téye temps maanaam dem na ci loo xam ne ni matul minute matul seconde matul sax tiercé de seconde lu tax nag yàlla parce que asra la wax subhaanalladi asra yëfi du yonentu ci boppam waaye kamal amul affaire la mooy yàlla te yàlla nag ala kulli shay'in qadirun mm. lu ne la mën hada wa sallallahu ala sayyidina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم آمين ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا